auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala seydina wa mawlana muhammad wa alihi wa sahaabihi wa xadimihi wa sallama taslima mbokk internet yi ñoo leen di siyaar ñoo ngi fii ci seen seen youtube bu ñuy wax yoonu ndam tv ñu ñëwoon seen émission bu ñuy wax daara daayira ñu doxantu woon fii ci bu Malika seet si yoon ku nuy wax imam Babacar Sylla di imam ratib bu jàkk cité bu malik. mu yëngu su affaireu dar di yëngu it affaireu daire ñu bëgg ak mom waxtaan bi tay ñu jox imam mu nuyo laata nga dugg si waxtaan imam ñoo ngi lay nuyu di la ziar ñi ngi lay fay bu baax Mamadou Lam ñi ngi lay nuyu di nuyu wa bi di len dalal jamm muy euh, yonu ndam TV ah yal na am ndam amin amin waaw ah, yoonu ndam moom yegg ci ndam rek incha allah ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax euh, non seulement turu chaîne bi waaye turu émission bi itam muy daara ak daayira te daanaka benn la incha allah lépp mooy defar nit ki pour yóbbu ko ci boromam. waaw imaam émission bi tey. Mhm. li ñu waxtaanee mi wàllum daara. day mhm. gis nañu da nga siy yëngu. Mhm. te dégg na ni nga siy yëngu-yëngu bu am solo. léegi ñu bëggoon a xam wàllum daara. fu mu sosoo. maanaam daara sunu askan bi fii mhm. ndax njëkk ña jamono yonent bi mhm. amoon na daara mhm. am ñun sunu aada moo laaj fii ñu def daara maa ngi baax sos daara wala daal waaw daara mi ngi sosoo ci yonent yàlla muhammad sallallahu moo njëkk a samp daara keroog bi ko suñu borom ne iqra bismi rabbika alladi bi mu ñëwee mu samp daara di jàngal saxaaba yi amoon nañ sax jafe-jafe mujj gi comme niñ ko miinee léegi liy xew mooy fan la daara ji di nekk amoon nañ ci jafe-jafe ndax bi mu commencé di doxal daara ji di jàngal saxaaba yi alquran rek amuloon woon dara lu ci aaya bu wàcc saxaaba yi ñëw mu jàngal leen ko firil leen ko jéem koo jëmbat def ko jikko ci ñoom loolu dafa dem ba déranger pénc mi waa màkk gis ñi daan naan sàngara naanatuñu sàngara parce que ñu ngi ci daara ji mm-hmm. ñi daan tux yàmbaa tuxatuñu ñi daan dem di njaaloo ji dematuñu njaaloo reykatu nit yi reyatuñu nit ñëpp di daw bi ñëw ci moom ñi daan def lu bon gis ne li ñuy def mi ngi daan ñu singili yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem réunion ci biir Quraysh réunion ne lii foog ñu jël ci pexe pexe bi ñu yaakaar ne moo koy saafara mooy ñu def décret interdire ne mbooleem territoire Makka bi bu fa kenn jàng alxuraan bu fa kenn jàngale alxuraan di dara mana dara moy bu dara am hurumu kaaba gi kenn du fa jang alquran kenn du fa jangale alquran lool moy kenn du fa samp dara loolu nek jafé jafé yu rëy comme boobu julli di bëri ñu ñu sax ñeen fukki nit mu nek jafé jafé yonent am benn mbokk bu baax bu ñu tuddé arqam ibnu abil arqam jël kërëm jox yonent bi ne kaay leen sama kër def ko dara kaay leen sama kër ñu def ko jakk kër arqam ibnu abil arkam la yonent njëkk a samp def fa daara di jàngale ñu fay julli comme jàkk bu waxtu julli jotee ñu nodd julli heure jàng bu jotee ñu jàngee ci biir kër ga parce que dañ leen ko tere ci xurumu màkk bi yépp loolu nag noonu la daara sosoo mu metti lool ci la yonent sallallahu alayhi wasallam nekk vingt-trois ans ñaar fukki at ak ñett kaamil bi door a jeex loolu li muy tegtale mooy kiy jàng bul gaaw a découragé mm-hmm. ñaar fukki at ak ñett yonent def na ko baqara ba naa si dog jeex ci saxaaba yi ñenn ñi mokkal ko ñenn ñi bind ko ci ay xeer ci ay der ay ci lu ne saxaaba yi tamit jóg ñi jàngee woon ci yonent bi ku ci nekk ñibbi sa dëkk foo ñibbi rek samp fa daara ñee dem Égypte ñi dem Algérie ñi dem euh, Habasha wàcc Afrique ba moritañ wàcc ba senegal ku ñëw rek samp daara koo jàngal ba mu fer nga ber ko su demee samp daara moom it noonu lay tasaaroo ba yàlla def mu yëg fii ci réew mi Sénégal nag yàlla ceral ko ci cër bu rëy diine dañ ñëpp cëru nañ ci waaye Sénégal nag kenn ëpp ko cër ci li yonent bi indi ci àddina bi wax dëgg yàlla ay cëri cër la ci am alhamdulilah loolu la daara cosaanoo ba yëg si fii ci Sénégal ñu di ko donn ba heure bii alhamdulilah imaam indi ngeen cosaanu daara mhm. léegi nu bëgg a wax si melokaan waaw maanaam nitu daara mhm, mhm. ki ko jiite mhm. lan la war a mel ban xam-xam la war a yor ban jikko la war a doxine parce que yaakaar naa ni ku yor ay xale di leen tàggat war nga leen a teg si loo xamante ni ëllëgee ku leen gis naw la effectivement ndax lu ñu gis jamono ji daara yi dégg nañ si yi nga xamante ni daal méngoowul ak diine méngoowul ak lislaam lu si mel da ngay dégg ni sëriñ diw tëdd na diw wala sëriñ diw sàkku na diw wala sëriñ diw kat dóor na taalibeem ba mu faatu est-ce que waaw yooyu noonu. léegi suñu maam doxinu daara sëriñ bi nan la war a doxee ak taalibe am. waaw sëriñ bi ni mu war a doxee ak taalibe bi mooy li suñu borom wax yonent bi ne huwa alladi baasa fi l ummiyina rasulam yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin suñu borom dane salaa salaam dama koo yebul ci ay nit yu jàngul ñoo ñooy ummi yi mooy ñoo xam ne jànguñu xamuñu jàng cest à mooy seen ak taalibe mu ne bi mu ñëwee mu leen di jàngal téere yàlla bi di leen won tegtal yi leen di yóbbu ci yàlla ndax doomu aadama ni muy jàngee téere noonu la war a jàngee nature bi xam garab yi xam lu tax mu ne fi xam njëriñu nekkam nit ñi nga xam leen xam lu leen fi indi xam seenu nekk xam nan lañu fi nekkee loolu day jegeel nit ki yàlla yooyu ay tegtal la yooyu boo ko toppee du la xamal lu dul sa borom loolu mooy yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim mu di leen yar di leen sellal di leen tarbiya wa yuallimuhum alkitaba wal di leen jàngal alquran ak sew-sewu xam-xam ya mooy xikma donte am na ñu ne alquran ak sunna te fekk bu njëkk ay nit yu réer lañu woon xamuñu sax lu xew ñu jubbanti leen loolu mooy doxiinu sëriñu daara ci biir ay taalibeem dana ma jafe lool nag ñu wax koo xam ne lii nga war a def ci nit mooy nga fekk ku dëng nga jubbanti nga fekk ku jub yow nga dëngal ko parce que bu ñu ne sëriñ diw daa tëdde benn doomu adama wala mi ngi naan sangara wala leneen du ma wax sax doomu mu faatu parce que doomu mu faatu taxaar mën na ci am maanaam nit mën nay door doomam sax mu génn àddina loolu gis nañ ko fi daaw jee am na wayjur bu ñu àtte barki démb tribunal matagul deux semaines doomam la doon dóor faf mu faatu kon yooyu mën na am accidentellement su fekkee dañ ne nag serigne ba daa tëdde moom dafay soxla ay preuve ndax man bokk naa ci ñi nga xam ne damay bëgg bépp xibaar bu ñu dégg ci rajo mu jëm ci daara man damay bëgg ñu topp tànk bi topp tànk bi topp tànk bi ba gis fi mu am ñu wax turam joxe ko wa illaa bu amul dama koy classé ci ñi nga xam ne seen yéene mooy yàq deru daara su demee ba am nag nañ ko sanctionné sanction boo xam ne waxuma moom dootu ko def waxuma loolu keneen ku gis sanction boobu sax dootoo ko defati warul yem ci ñu wax ko nii rek après ñu wax ko mu jeex déedéet nañu ko topp nag ba mu leer bu ñu ko toppee ba xam ne lii am na ka ko def nañ ko sanctionné sanction boo xam ne du ànd benn benn benn yërmaande waaye su dee leerul nag ki ko wax nañ ko sanctionné su dee ki ko wax mënul indi ñeenti seede yooyu wér moom charia dafa ne nañ ko sanctionné sanction boo xam ne waxuñ moom dootu ko wax waaye ku dégg li mu wax bu ëllëgee yow boo ko bëggee wax da ngay wuti ay preuve ba pare loolu tamit nan ko bàyyi xel mooy am na ñoo xam ne seen yitte ci xeex diine du mooy ñu jëlee ko fi mënuñu ko mais dañ koy fexee tilima loolu tekkiwul ne ak sëriñu daada du juum tekkiwul ne du def safaan waaye dafay tekki ne ñi mu def faas te léegi leen moom du xam sax li xew ñoo ko ëpp mooy ëpp ko jumtukaay mën nañoo yàq deram ba kenn dootu ko bëggati loolu rek la ñuy sóoraale. macha allah waa léegi imaam. Mm-hmm. maanaam sëriñu daara bu nekk si daara. Mm-hmm. yor ay ndong ndongo yi fu nekk lañuy ñuy mm-hmm. ku si nekk melokaanam. ak jikkoom. ak nu ko yare ndax kii day jóge fii kii jóge fee kii jóge fële duñu bokk xeet duñu bokk yariñ xale bi war a dugg daara ban âge boo xamante ni maanaam yàlla dogal na ko si wala boog naa Muhammad daawoon na ko si taabu pour ñu indi xalé ci daara ji hmm. pour ñu mëna def ci mom jikko bi nga xamanteni hmm. du bokk ak jikko bu ñu ko xamé wala jikko bu ñu toxee si mbedd mi waaw bu dee côté yonent bi sallallahu alayhi wasallam day mom télul wona jot ci ndaw ñi pour jangal leen alquran comme ni ñu koy défé ñu nga xamné xalé bu am 5 ans 6 ans rek ñu duggal la ci daara ji mom hmm. ay talibé mak la yo ndax bi mi doora a dafa fekk ñi jur xalé yi sax duggu dugagun ci diine ba seen doom di ñew

muy defar mag moo tax moom daara ju mag la yoroon boo xam ne ay mag ñoo ci ëppoon dëgg la amoon nay ndaw ku mel ni Seydina Alioune boobu ay huit ans lay am ak yooyu te ñi gënoon ndaw ci la bokk moo taxoon am na chance bu mokkal kaamil bi yëpp na ñeneen ñu ko ci mokkal mais ñun nag ci ñun la âge bi xale bi di demee daara daal mooy bu demee ba ràññee rek na mën a xàmmee lii mooy loxo ndeyjoor lii mooy loxo càmm soo ko waxee mu xam soo ko teree mu xam soo digalee mu def boo teree mu bàyyi rek kooku mën a jàpp mën a dem léegi nag loolu mën na nekk juróomi at mag ñi nag daana daanañ ko yéegal ba juróom-ñaari at lañ daan dugalee xale bi daara juróom-ñaari at boobu aada bu rëy la fi woon daanaka moo xaraf benn lañ woon mais nag dem nañ ba gis ne xale bi bu la neexee mën ko teel a dugal daara ci juróomi at bu demee ba ràññee mën a jàpp rek nga teel koo dugal daara mais bàyyil ba mu ràññee daal ba xam ne lii mooy lii lii mooy lii nga doon ko dugal. waaye léegi gis nañ si ñi nga xamante ni comme ni nga ko waxee daan teel a dugal seen doom daara. Mm-hmm. waaye suñu demee am yenn âge yi. Mm-hmm. sept wala huit ans. dama gis ñu génnee ko si daara ji. Mm-hmm. yóbbu ko sa école ba. Mm-hmm. waaw waaw am na ñu koy def parce que xëy na dañuy jéem a naxanteeg yàlla ñoom kiis lañ ko tuddee dañ ne da ngay dugal xale bi ba mu ubbee ko rek. après nga dugal ko tubaab loolu naxanteeg yàlla la. am ñun tamit dañoo dañoo kenn xamul ay lay la ñu doon c'est-à-dire dañuy nax suñu bopp mais yàlla kenn du ko nax alxuraan boo ciy dugal sa doom da nga koy dugal te yàlla tax ñëpp xam nañ ne alxuraan bu njëkkee ci bopp kooku bopp bu rëy lay am xel mi day waaw léegi yow dugal ko ci alxuraan ba mu commencé ubbeeku xel mi commencé neex muy mën a liir di commencé di ubbeeku nga ne ko rosee dem yóbbu ko pour mu jàngi tubaab te montant loolu ngay dabb fële wallaahi li muy am ci yàllaa ko ëpp mënoon nga bàyyi yi ba pare kaamil bi du tardé nit doomu jullit mën na jàng alxuraan ba wàcc alxuraan dem duggi école tubaab te du ko wàññi dara kenn xamul ñaata nit ñoo ko réussir te gis nga léegi la sax mais bu njëkk mag ñëpp noonu lañ daan def da nga daan jàng alquran ba pare dem duggi école tubaab te boo ñëwee daanaka dañ ñëw tëbal ay classe sax parce day fekk sa bopp ubbeeku na loo xool mokkal ndax téere yàlla boobu ni mu gaawee ci xel mais loolu daal bu ma conseil nit ñi ñuy def dugal sa doom ci alquran ba bopp bi commencé ubbeeku nga rocc ko dem dugal ko école tubaab loolu day benn yow da nga bëgg di wërantoog yàlla bàyyi ko mu jàng dugal ko ba mu wàcce kaamil waa imam mhm. day gis daaru modernisation yi mhm. dafa xew léegi mhm. bu njëkk lu ñu xamoon si daara ñun da toog si suuf lal sa basan baa nga lal sa benn saaku da sa si jaara ba der wër sa àll ba uuf léegi dañu gis ay daaru modernisation noonu am tabaxal kaas yu yàññ defal la maanaam doxin bi dëgg la doxin bi de baax na waaye ba ëpp barke maanaam barke bi nekkoon ci fële mënut a nekk ci moderne bi dinañ mën a mokkal la dinañ méngoog seen jamono parce que fa la jamono yegg waye barke bi nekkoon fële mënul nekkaat fii lu luma la ci jox misal jëlal ci misal mag ni jange der jàngee allu ak da tal mat muy tak ngay jang ak ni jàngee ci lampe courant yi bokku jëlal ko mel ni Serigne Touba jëlal ko mel ni Serigne Hadj malik jëlal ko mel Cheikh Omarul foutu jëlal ko mel ma Abdoulaye jëlal jëlal jëlal mag ñem nga xol ñom ñi jaar ci daara biñu génné am ci barke benn nit ngay gis ñu ne la moo génn fii dem ca àll ba gor àll def fa dëkk def fa ay néeg ñëpp fekk ka fa muy bind ay téere yoo xam ne bu ñu la waxee lii yëpp dundam la ko def da nga naan non lii nit mënu ko liggéey ci dund bu gàtt bi léegi natt ko ci ñun ñi jàng ci école moderne yeeg daara moderne yi soo paree ab néeg bu baax sax mënoo ko taxaw kër kër bu normal pour nga samp ko rek problème la mag ni ay dëkk lañ daan samp da ngay samp dëkk to toog sampaat fële am dëkk bind ay toni toni téré lolu moy barké xam-xam bi xam-xam bi mo am barké force bi yalla di def ci yow lolu lolu kenn mënu ko expliquer ci adina mais moderne bi mën nga jang xam-xam bobu mais pour nga bind ay téré sax day nekk danaka lay nekk jafé jafé ci yow so bindé ñaari téré lañ dal oh di docteur la machallah mais daanaka mënoo tegale ñaari kër yoo def daara ju baax sax loolu mooy wane ni barke ni mu amee woon ci njàng mu njëkk ma wute na ak loolu plus taalibe bi ni mu daan tarbiyu sëriñam bu njëkk léegi ci daara moderne yi amul de léegi moom da ngay naxantee xale rek masla mooy nekk sa chef sax boo moytuwul loolu barke bi tamit du génn barke daal dina ñëw lool ci njàng moderne mi donte baax na parce que dëppoo na ak jamono waaye bëlee ak barke léegi talibé yu yalwaan waaw lan moo waral yalwaan si daara yi dañu gis daara yoo xamante ni seen taalibe yi dañuy yalwaan di wër yalwaan te gis nañ fi daara yoo xamante dañuy téye seen i taalibe di dund macha allah mm-hmm. ku dem Tiwaawan am na fa ku dem Touba am na fa mais dañu gis ñun suñu gox goxaar yi taalibe yoo xamante ni dañuy yalwaan foo toll da ngay gis ak ñoom si mbedd mais lu war a ne si ñoom si xam-xam mm-hmm. duñ fa ne mm-hmm. benn aaya yu jël wala benn way di ko woyee di ko yalwaanee ku xëy cinq heures du matin yalwaane egsi vingt heures man xaw ma looy jàng si daara ja mhm. waaw kay yii mooy modd bi nga xam ne nag moo jaaxal àddina yëpp mooy daara yalwaan daara cosaan la léegi-léeg nga gis ñu bari dañuy wax ci daara mais comprendre bu ñu daara diggantaan daara dafa am ñetti moddu daara yu ne ci réew mi maanaam képp kuy yëngu ci daara na ko xam daara joo xam ne ñoom du ñu yalwaan mais taalibe yi dañuy bay di jox sëriñ wala di bay di indi ci kër gi ñuy dundee bay dundee daara bay dundee bay jàng. comme mag ñu njëkk yi mën noonu de. voilà benn beneen daara bi nag ñoom du ñu bay mais internat la dañuy fay xaalis bu cher na. ay fukki junni juróom-ñetti junni ay juróomi junni mais du ñu dem fenn xale yi dañu xëy rek toog di jàng muy ñaar ñetteelu daara ji mooy daara yàlla la daara ñoo xam ne ñoom ña fa nekk seeni waajur amuñu luñ fay. xale yi mënuñoo bay waaye bu ñu jàngee bu heure lekk jot ñu dem jëli seen sarax jëndi si waat jàngaat ñu bañ a boole xale bi taxawaalu ci mbedd mi ay 23 heures ci guddi vingt 22 heures di wër ñooñu ay enfants de la rue loolu leneen la mais maa ngi wax moddu daara yalwaan ku mel ni Thierno Souleymane Baal bokk na ci ñi ko fi ànd andi ndax tubaab bi dafa ñëw Sénégal fekk fi daara est-ce que xam nga daara jiitoo na école tubaab bi. lu ëpp mii la lu ëpp mii la fii si réew mi waaw maanaam daara jiitoo école tubaab fukki siècle ak ñett daanaka dégg nga wax de lu ëpp junni at daara nekk na ko fi te fekk école tubaab duggagul Sénégal bi tubaab bi ñëwee coloniser ñu si li indaale école Jules Ferry bi mu indee école bi mu fekk mag ñi di jàng alquran di jàngale alquran di bay ay tool di dunde tubaab bi ñëw di jàpp nit ñi njaam di yóbbu mais ci biir loolu nag ci la sampaale école am gisoon na ne ànd ak loolu yëpp li muy coloniser nit ñi li mu bëgg dëgg-dëgg mënu ko am parce que bokkul ak ñoom jikko su waree soppi jikko yi foog mu yar mu samp école di jàngale professeur bi njëkk indi dafa boole woon France ak olof pour ñu mën ko li mu leen di jàngal ñu dindi olof bi xamal ko ne ko fii ñu ngi jàng seen làkk mënoo leen a soppi parce que culture bi day des ci ñoom ci lañu changé di la jàngal français jàngalaale la culture occidentale nga xam ne duutoo amati culture sénégalaise jël budget bu rëy nag di neexal képp kuy jàng tubaab kuy jàngal alxuraan kenn du la neexal pour nit ñi bàbbeeku waaye ànd loolu yëpp taxul nit ñi dem bi ñu gisee ñuy neexal ñuy jàngal mujj gi am ñoo xam ne dañuy jël seen doom di fa yóbbu parce que certificat kese boo ko amee da ngay liggéey bu njëkk waaw ñuy bab bi xale yi di yóbbu di bab bi xale yi di yóbbu école tubaab Thierno Souleymane Ball ni tubaab bi di laajee seeni i njaboot noonu laay laajee seen i njaboot moom tamit indi leen ma xale yi ma jàngal leen alquran ñuy indi mu leen di jàngaloo alquran mais dañuy bëri bëri boo xam ne kenn mënu leen a yor ba dundal leen bu heure lekk jotee mu ne dem leen wuti lu ngeen lekk te dellu si waat kee na ku ko jox budget bu rek muy jox kii jàngale français dañ koy fay moom mënul fay ñi koy jàngale mais bu lekk jotee mu ne bàyyi leen xale yi dem ñaane lu ñu lekk ñu ñaane lu ñu lekk ñu dellu si waat en plus da leen di tarbiya la waale parce que dem di laaj loolu ku rëy mënu ko soo rëyee bu ñu la yónnee sax da ngay diis bu ñu la bëggee laaj loo da ngay diis rëy googu da koy dindi ci yow encore yalwaan bi dafa amaale tarbiya mais comme ñu nit ñi soxlawuñu yooyu amul problème li ñuy gis rek mooy xale baa ngi loolu la cosaanoo mooy ginnaaw bi mu nekkee victime la mais nekkul cosaan ci lislaam que par force da ngay jàng alxuraan di mais système bi moo ñëw poñe daara téye koom-koom ñu di ko def ci école tubaab bi ba ñee amuñu lu ñu lekk ñoom it ñu ne buñ jógee nañu ñaane lu ñu lekk parce que araamul léegi nag bu amee sëriñu daara yoo xam ne dañuy jël seen taalibe yi bàyyi leen ñu rulle ci mbedd mi 24 heures sur 24 loolu du ñoom mais li ma gëm nag mooy xale yi taxawaalu ci mbedd bu leen compter ci daara nañu compter ki nga xam ne dina xëy jàng fajar ba 8 heures mu soxla lu mu ndékkee daw génn yalwaani ba 9 heures mu delluwaat ci kër ga dem jàngi su añ jotee mu jàng jàng jàng ba 2 heures wala ba 1 heure mu daw ñaani añ balaa 3 heures mu wàññee ko waat dikk jàng su ngoonee mu jàng ba ñu noddu gee mu daw uti lu mu reere bala faa def une heure de temps mu dellu si waat ñëw c'est-à-dire loolu lu alquran nangu la ndax budget ba ñuy def ca njàngum tubaab ma jaadu woon nañu def ko ci njàngaleem alquran malheureusement defuñu ko ci nit ñi tamit kenn kaasu ko dafa mel ni lu normal la booy jàng alquran yow dangay ngay démerde ak sa yëfu bopp mais kuy jàngale tubaab nag dañ la war a tabaxal kalaas loolu man boobu injustice ni ñu ko nangoo suñu bopp yi daf ma yéem gox boo dem même village léegi dañ leen di tabaxal école waaw même bu fa ñeenti kër nekkoon sax ñu tabax fa école tabaxuñu daara def fa kalaas yu bëri jënd leen craie bic table banc wutal leen ay professeur di leen fay ay salaire parce que dañuy jàng làkk tubaab waa léegi ki bëgg jàng alxuraan ñu ne ko noo yow demer deelal sa bopp te ñoom ñaar ñëpp di ay sénégalais bokk réew mi bokk li ñuy contribuer ci réew mi loolu dafa war a dem loolu tànk dañu rek daanaka yalwaan mënul ci. mais loolu est mën a dañ ak euh, gouvernement bi. Mm. est-ce que yéen ñi xamante ni yàlla teg na leen foofu. yéen mm. ngeen am moyen di si dox. Mm-hmm. yéen a ngi siy dox yéen a ngi siy wax. waaw ñu ngi ciy dox mais saafara bi du yomb. parce que ni yilif réew mi école Jules Ferry mo len gëna doy ka école yonent bi loolu problème bi ñoom dañ jàpp ne école Jules Ferry bi mo gëna depp ak jamono moy tabax nit ko xamné intellectuel lay doon moy tabax docteur ingénieur professeur magistrat bi ñu ñëp école bo mo koy defar léegi ñu jàpp ne école diine bi moom amul njëriñ parce que do defar docteur alors que loolu c'est pas vrai dañ ko bëggul buñ ko bëggoon mo am demal Égypte dañu jàng français mun na am na ñuy docteur demal Maroc lu ñu jàng du arab am na ñuy docteur ay professeur ay ingénieur te ci arab lañ ko jàng demal Irak daanaka ñoo raw ci wàllu technologie ci ñi ci yëmb yëpp seen culture ba léegi ñu ngi ko garder di ko jàngee ci seenu làkk chinois yi boo demee même chose foo dem ci àddina bi waa réew ma làkk ba nu yor danañ ca liggéey am ciy docteur am ciy professeur am ci lu ne mais ñun nag ñoo soxlawul loolu ñun ñoo jàpp ne ñun dañ ko bëgg a jaaree ci école tubaab mais bu ñu buggoon tey di jàng diine ba nekk professeur man démb laa jógee Fass Touré sëriñ Adi Touré jumaa ji mu tabax mën na jumaa ji fukki yoon jumaa ji amul poto fan la jàngee amul poto comme poto yi nu mu sonalee nii mhm. architecte bi defar lii boo ne ko woon lii dindil poto yi ci nekk jumaa ji daal mhm. moom jumaa ji ëpp na 500 mètres amul poto te moo ko liggéey te mosul dugg école daara la def defar na montre boo xam ne montre ru bant la montre bi daanaka rond bi toll ni ne fii ñu toog ñun ñëpp montre la buy dox te bant la ko defaree ba nii ma nga ca di dox depuis cent ci ginnaaw ay matière la yoo xam ne ni mu amee ci français noonu la amee ci anglais noonu la amee ci arabe système bi nu yor nag ñun moo boddi bu arabe boddi bu anglais ne moom système mu français bi moo ko gënal lii rek la mais nekkul ne français bi dafa am xam-xam bu beneen làkk amul non non loolu ñuy génn xam ne ne boo xasee génn France fii soo xasee génn réew mii xam ne France fii rek la amee doole mais boo waxul anglais boo moytuwul dootoo wax ñu bëri voilà kon loolu la rek dañu noonu rek mais mën na de waaw ah, dëgg dëgg waaw kon euh, mbokk yi ñoo ngi dem passe pipe te dellusiwaat léegi léegi continuer waxtaan ak imam Babacar Sylla incha allah

dañ koy yéene maanaam mbas mi laalul daara ji waaye mesures yi laal na daara ji. mesures de barrière yi. voilà ñiy manipuler ni ñu war a doxalee ba dëkk ak moom ñooñu moom laal nañu daara ji mais mbas mi nga xam ne dañ na balaa bu wàcc ci àddina ma laal bant daara ji moom dafa ne dafa ne alhamdulilahi rabbil alamin hmm. dégg nañ fi sax ay présidents yu corona ay premiers ministres yu korona néew na ci ñoom ñoo xam ne ñemeetuñoo sax génn yenn génn yi taalibe yi tey leen gën a mën a wër tey leen gën a dankaloo di jàng un cas ko am loolu yéemul àddina école dañ ko ubbi rek mu am corona ñu tëjaat. waaw dégguma am de. ñu tijjiwaat ay professeur am corona. Hmm. daara yi mësuñoo tëj mësuñoo am corona. loolu dayoon na sëkk ñoom ñu jox ci alxuraan mais malheureusement summun bukmun umyun foofu laa yubsiruun dañu gumba tëx lu nanguwuñu sax gis loolu te bu doon ne daara la ñu ubbi am ku am corona daara yi ci Sénégal yëpp la ñuy tëj médiatiser ko parce que taalibe yi dañoo salte moo tax corona ba fa la ëppee te montant bu amee ci école bi kenn du ci wax day mel ni xewul am na benn élève bu am positif génne nañ ko classe bi ñu continuer di jàng am na ay quelques professeurs yoo xam ne am nañu corona école ba day continuer di jàng de. du mm-hmm. bàyyi professeur bi dem faju ci bu bu corona dañuy tëj loolu ñëpp xam nañ ko ñu waxante dëgg rek ah léegi loolu mooy lan c'est-à-dire moo lay wan ne dafa am ñoo xam ne dañuy xeex daane léegi bi ñu gisee loolu amul ñu dem jël ay mesures ne xale yi dañ leen a bëgg a aar ci feebar bi léegi dañ leen di jëlee ci daara ji yóbbu leen seen kër paam mais daara kër la ministère de l'éducation wala ministère de la femme et de la famille et du genre jël na lu ëpp junniy xale ak nangam dajjee leen ci seeni daara yóbbu ci seeni kër ca àll ba fa nu jógee woon di jàng si parce que nee na da leen di aar ci feebar bi waaw moom du jël ñi ci école bi di corona te yóbbu leen seen kër yi mu baleen fa daara ji amul benn cas mu leen di buddi naan da leen di aar yi ci ku feebarul ba fi ñi feebar di jël ñi feebarul ne da nga leen di aar yi dañoo am problème alquran di ko xeex yàlla mi moom alquran bi jël na alquran ci corona mais ñiy gérer corona nag ñoom di digérer loolu moo tax ñu tas ay daara yu bare bare ñun boo gisee suñu yëngu yi ñuy def fan yëpp loolu la loolu moo tax ñun ñu ne déet lii yàlla tegu na ko ñii ñoo ñu ko bëgg a teg duñ ko nangu dootu ñu nangooti kenn ku fi tëj benn daara loolu moo doon sababu yëngu-yëngu yi ñu ci doon def yëpp fan yëpp ñu di leen def face ne leen nag bëggunu ngeen aar ñu ci feebar bi bëggunu ko feebaru ñu nga ne naara aar ñu ne na bëggunu demal aar ñi feebar ba pare fexeel nu wér jafe-jafe yooyu nag la daara am benn xale yi daan génn di jëli sarax ñu ne dootuñu génn di jëli sarax parce que nee nañu wóorul ta xalé bi jaar fi dem fi ci boutique bi taxaw yalwan fofu la élève bi di jaar gaddu sagam dem ci boutique ba jënd nguru ñu bi bul dem jënd nguru bul dem ci boutique bi yalwan parce que wóorul mais élève bi mën na fa joggé dem jënd nguru wóor na loolu yabaate la élève bi moy joggé fi dem ba ci école ba joggé wat fa duggaat seen kër talib bi génné ci kër gi dugg ci kër gi la ñu ko bi talib bi di jaar moom la nit ñi di jaar kër yi taalibe bi di dugg moom la nit ñi di dugg ñu ne taalibe bi wóorul mu yewaan parce que day feebar xanaa nit ñi du ñu feebar. Ah, waaw déet soo gisee école yi. waaw. day gis yi élèves yi jàngi. waaw ñu ngi sol seen masque. waaw su ñëwee si buntu école yi daan si teg euh, seen ndox. teg seen saabu. waaw ngi seen javel waaw ñoo ngi laalu est-ce que mm-hmm. daara ji ñoom yooyu nu leen imposé. ñu ngi koy def. yoonu ndam maa ngi leen di ñaan xam nga loolu mooy li normal. ñu tek fa système bo xamné ku ñew rahasu lal gel mas dama leen di ñaan rek dem leen reportage ci école yi ta yalla tax yi masque école yi sax fa gel defuñ fa dara dara ci mesure bari yi ñi wax école bu ko ci jéem a école privée lay doon te sax du ko respecter de wër leen rek ci école yi dama leen ko ñaan ngeen seet xale yi école boo xam ne mi ngi def mille xale mille mille personnes. ñu xëy war a dugg huit heures ñëpp di raxasu loolu est na que xel nañu nga dugg ci classe bi ñëpp takk masque bu ñu takk masque man maa la wax nii dama faa dem élèves yi takkuñu masque ñi ëpp ci professeurs yi takkuñu masque lu xew dara xew benn bi ñuy digal nit ñi defuñu ko ci école yi ma wax la ko teguñ fa benn dispositif bu baax. respecté wu mais ñu koy wax nag ci kaw naan un médecin ko xale yi ba léegi ñi ñu toogee ci banc yi toogee classe yaa ngi fees dal. kaar yaa ngi fees dell mesures yi ñu ngi koy wax nii ci rajo yi ak ci télé yi mais jëluñu ko xaalis bañ ca defoon ca bàgg bu njëkk ba defuñu ko deuxième vague kenn def dañ daan jóg di wàcc ay gel di wàcc ay masque bii kenn talu ko dañuy toog rek naan waa jël leen mesures barrières yi naan la gisoo enseignants yi ñu ngi kaas ne dañoo bëgg ñu tëj école yi hmm, porte parole ministre de l' éducation ne école yi kenn du ko tëj nañu respecté mesures yi te du ko respecté kat waaw moo tax euh, dañuy fowe nit ñi loolu laa gëm mooy école jëluñu mesure barrière yi au sérieux daara ji nag jëlu loolu moom dëgg la loolu moom ni da ngay wax sa daara ji jëlul benn mesure barrière bu ñu waxantee dëgg du ñu takk masque démb laa jógee daaray kokki démb laa jógee Fass Souré démb laa jógee Touba démb laa jógee Thiaw yooyu yëpp dañ ko def tournée dem ci benn bés te gis nga nit ñi li ñu wax naan boo demee tuubaa du ñu yalwaan Thiawoon loolu ay wax la de hmm. taalibe yi ni tuubaa dañuy yalwaan taalibe yi ni Thiawoon dañuy yalwaan du daara yëpp mais boo fa demee tey nga téye sa micro bii taxawal ci booru jumaa ja buy bu Tuubaa buy bu Tiwaawan la ak bu kaw da nga fa fekk taalibe yu gàdd seen xol di yalwaan ne ci dëkk bi ñooñu kenn sañu leen laal parce que ci kër yu mag la ñu nekk loolu la rek comme bii Ndakaaru nag ñi fi faral di nekk amuñu tur kenn xamu leen mais yalwaan daara yi ci mucc bëriwul am na nag ñu ami moyen tabax internat muccal ci xale yi même internat yi sax respecté wul mesure barrière yi xale ya fay jàng kenn du takk masque mais man jàpp naa ne yàlla mooy aar man foofu laa ko yàlla mooy aar ñi dàq jël mesure barrière Macron Macron dafa corona ngeen foog ne jëlul mesure barrière Macron dafa corona woon ah moom temps nee na moom ànd ak loolu yëpp daan raxasu daan na jël lépp li ci war mais xamul man ko yàlla la bu doon ak cet mooy tax nga mucc ci corona Macron du corona Donald Trump corona na fi président wu Gambie corona suñu palais bii ñu wër président ñëpp corona na moom nag quarantaine nañ ko xaw ma ndax dinañ wax ba sama duñ ko wax mais en tout cas daal kilifa yi ñu yaakaar ne ñoo dàq jël mesure barrière ci àddina corona nañ ñu gis ne ñoo ko gën a sàggane corona bi te mooy taalibe yi ak sëriñ yi loolu nag ab jàngale la bu ñu waroon a xamal ne nañu teey sëñ bi ñu dellu ci yàlla xam ne lii mbiru yàlla la yàlla ak ñuy wan boppam mais daal man bëgg naa ñu dooleel daara yi au lieu ñu bañ a profité ci Covid bi ñu tëjaale daara yëpp man maa déglu Ndeye Sali Diop Diop mu wax ne. janvier février mars dañu fas yéene génnee fii juróom benn junniy taalibe 6000 taalibe lañ ko a génne ci Dakar fii ak mois de mars 3 mois yi. génne leen maanaam delloo leen seen kër. delloo leen seen dëkk ki dëkk Saalum ki dëkk Bawol ki dëkk Jolof ki dëkk Fuuta ki dëkk Casamance ñëpp lañu dellu parce que feebar bi comme si que foofu amul feebar xanaa Fuuta amuñu cas Fuuta am nañ cas. Jolof am na daal saa la moom est-ce que ëppalewul sax Dakar. waaw ah, mais kaay dañuy Dakar ak cees la ëppee moo tax nu jéem a def couvre-feu bi entre Dakar ak Thiès. waaw fële ëppee wul ne fële amul léegi Dakar fi la feebar bi ëpp nga jël ñenn Dakar yóbbu Kaolack ñu yóbbaale feebar bi Kaolack bu fa amul woon sax xanaa taalibe yi ñu yóbbu ñoom est-ce que mënuñoo yóbbu feebar bi foofu. ki xas feebar ne Dakar kay nañ ko bàyyi wala feebar bi dugg na Dakar que loolu mooy sens su dañuy bañ. ñu ne woon fii di déplacé ak feebar bi après yow nga guub juróom benn junniy xale nga ne da nga leen di yóbbu fa mu amul woon fa mooy yow damaa bëgg transférer feebar bi foofu. balaa ñu leen di yóbbu daa defal test ba xam ndax. yow lan nga kenn def test man mu fekkee ko man damaa bokk ci ñi ñu yóbbu. dañuy ñëw gaare seen biis dañuy ñëw gaare bis bi ci buntu daara jël xale yëpp bu dugal ci biir départ dañ seen yoon hmm. test xam nga benn test bu ne ñaata la 40 000. benn test nit ku ne. benn nit bu nekk 40 test. si six mille taalibe nga bëgg a defal ñëpp test plus test ya nga daan def yow xaalis boobu yéene wun nu ko de loolu du mu ko ci def noonu lañ lay buubee yóbbu nga dem te bu ñu amoon pexey taalibi corona ñu def damaa gëm ne dañoo amul pexey taalibi bu corona mais li ma gis mooy covid bi dañ ci profité di ci rayaale daara te mënoon na ñàkk yàlla moom tegul daara benn fitna ci feebar bi au contraire ñun dañoo gis ne daara yi dafa gën a fees ci covid bi parce que dafa am benn jamono école yi tëj

dañ ko wara a nangu amul Europe nak amul asi amul Amérique mais amna fi Sénégal bo demone Europe xam nga lan lañ gën fonk ñoo football football fofu comme yàlla mën nañu jël ay milliards diko def ci football bi parce que mo nek sen xol dañ ko bëgg football du développer am réew mais moy sen nat ñun suñu nat alquran la réew mi réewu diine la réewu tariqa la réewu alquran la. mag ñi fi jiitu yàlla da leen a jëmbat ci xolu nit ñi seetlu woo fii ku fi bëgg dara sax foog nga jaar ci sëriñ si réalité la fi loolu la yàlla dogal am na bu doon feneen bu doon tey boo demoon ba Inde ñoom nag lañ fonk réew mu ne am na lu ma fonk Brésil noonu la mel ci football réew mu ne am na aadaam ñun suñu aada moom diine la loolu la ñu yàlla defal mooy dañu bëgg alquran jafe-jafe yi alquran di ànd ak yépp nit ñaa ngi dugal seen doom ci alquran xoolal nit ñi niñ ko ñaawlu xoolal nit ñi ni ñu ñaawloo yalwaan mais ba léegi am na ñu jël seen doom yóbbu mu yalwaani te koo wax mu ne la yalwaan baaxul te tey la nit ñi gën a mën a joxe seen doom ñuy dem ci daara yi. alquran nit ñi nee nañ ku ko jàng après doo nekk dara mais tey la nit ñi gën a jël seen doom di leen yóbbu ci alquran moo lay won ne nit ñi ñoo ko bëgg boo ne woon fubal baaxul am na ñoo xam ne du tere ñu yóbbu seen doom mu fubali. dëgg la nattu la. ku nekk nañ ko nangul li ko yàlla nattoo ki bëgg a jàng tubaab nañ ko bàyyi mu jàng tubaab mais ki bëgg a jàng alquran nañ ko bàyyi mu jàng alquran ñu bañ ko xeex mais daara daal mu ngi dund jafe-jafe yoo xam ne ci Covid bi metti na ba jéggi dayoo mais ma leeralaat na yàlla tegu ko ko waaye sunu état moo ko ko teg. waaw déet yooyu ba yéen yéen ngi si dox ay jéego. waaw yéen ñii yor daara ji. waaw am li ngeen dund yéen si dox ay jéego jëm si waxtaan ak état ba xam daal ngeen mën a trouver benn solution wala benn terrain d'entente boo xamante ni di ngeen mën a dund comme ni état di dundee wala comme ni école bi di dundee daara yi di ko dundee di continuer di wax ak état bi de moom wax ju yàqu la moom xam naa ko waaw mais ñi ngi ciy wax ak kilifa diine yëpp déggoo ñi ma la dëkk yi ma la limal léegi ñu ngi woon ci benn tournée nationale boo xam ne dañ ne dañ bëgg dem ci kilifa diine yëpp ñu yëgal leen li xew yóbbaale ay document def ko en arabe en français wan leen ko ne leen bi Covid bu duggee ak léegi ñaata daara la ñu tas ñaata xale la ñu yóbbu delloo leen ca dëkk ba ñaata sëñ daara la ñu yóbbu ci kaso ci fitnaal nañu xale wala nangam sàngam pour ñoom ñu xam li xew buñ jëlee position moonu gënal buñ jëlee position yi ñu yëgal leen parce que kilifa yi dañoo war a jël mais état bi moom fooguma ne dana ki lay dóor noo ko yëgalee yan mooy dóor parce que moom xam na li xew te moo koy def moom moo xam ne taux bi mu soxla ci Sénégal yëpp jàng français taux boobu état mënu ko am parce que daara moo ko gis nga Côte d'Ivoire la fa nek ëpp na 50 yo xam dañu jang France Sénégal mu am loolu toogu ñi fi dégg France est ce que mat nañu 10 lool cent loolu nekkoon francophone bu sañu Sénégal 90 yépp français lañu wax mais lool mënul ant lu tax mënul ant parce que daara ci liko empêcher la bok lool nak dana tax état bi lool arrangé ko parce que milliards yi ñu jëlé fofu diko def ci école bi mënul continuer muy dolel daara di gën a faible bu yàggee ñee dañ naan ñun Sénégal xaalis bu ñu fay def pour njàngum tubaab mi daanaka dafa dellu ginnaaw loolu mooy logique bi nga xam ne boo ko toppee ci ngay xam lu tax état sawarul pour daara ji aisé wu. léegi nag ñun li ñu mën mooy ñu taxaw def leen face leen leen day taxaw. déet mais mën nañ leen boole parce que gis nañ ay franco arabe. Mhm. franco arabe bi da ngay jàng. arabe jàng arabe. ah kay ci niveau yi. mën na léegi pourquoi pas am benn teen dandan franco arabe yi ñu dooleel leen ñu gën a jógee su ko defee daan mën a jàng alxuraan daan mën a jàng seeni français te du yàqal kii du yàqal kële waaw loolu dëgg la mais xam nga franco moo tax ñi yaakaar ne waa daara dañoo buggul français dañuy nax seen bopp bi ñu leen ko bëgg a boobu lañ ko buggul mais franco arabe yi ngi fiy gis yëpp bi tam foofu de waa daara ñoo ko école franco arabe boo romb nekkul école état bi benn oustaz moo ko fa def boo xam ne moom sax amaan na jàngul woon franco arabe mën naa am sax ci a jële génnee mu ami moyen gis ne xale yi am nañu occasion wu jàng français parce que seen bopp yaatu na ñu jàng arabe jàng français jàng alquran loolu baax na dara nekk ci mais soo bëggee jëlee xale bi ah ba aag boo xam ne alquran la war a njëkk a nga bëgg def ko moom français mais su boobaa du am diine lii mooy réeróo bi heure bi ñu ko soxla am naa sama jalbal boo xam dafa jàng ko dem dugg mais man heure boobu laa ko bëgg mais heure bi ñu bëggoon ma dugal ko école bëgguma ko heure boobu lii rek mooy réeroon mais ñoom loolu mënuñu koo comprendre. waaw ah, mais école soo fay dugg fu nga am 7 ans. waaw. Ah. déjà 6 ans 7 ah, ans mais trois ans ba 6 ans 7 ans. Mhm. fekkee franc arabe bi la ñu tëral. pourquoi mhm. pas ñu def benn classe boo xamante ni. Alxuraan lay doon. Mhm. entre 2 ans yi 3 ans ba 5 ans. 6 bah, ans après nous sommes soog a école Sénégal non mais pourquoi pas nous trouver terrain d'entente pour ngeen nous négocier pour non état bi amul wow en dugal alquran ci école bi. pourtant école Pourtant, nous heure mhm. élèves yi. sommes arab. classe arabe jàng côté quatrième. waaw ñi fa yeebi dañ defal ay cours arabe nga tànn anglais espagnol arabe ak yu mel noonu dugal ko mais loolu arabe la parce que boo génnee da ngay soxla làkk bi te oustaz bi une heure de temps la fay am benn une heure de temps CM2 nga daal fa wala boog quatrième nga jaar fa troisième nga jaar fa sixième nga jaar fa cinquième fu ne nga am fa une heure de temps mooy quatre heures de temps ci semaine bi ci ñeenti classe loolu lan la mën a def ci élève boo xam ne saa waaye li muy jàng ci ay waxtu ci français kenn xamul nu mu toll boobu arabe dañ ko sënalee nit ñi pour wan leen lii nit ñu bëgg nañ ko da ngeen ko ci sësal pour naxee leen mais école Sénégal bi Jules Ferry moo ko moom kenn sañu fa jàngale diine bu dee école privée yi nag ñoom léegi ñu ngi jël ay initiative ñoom di jël ay oustaz di jàngal ay xale yu ndaw ñuy jàng alquran ci biir te loolu ñoom la neex rek mais kenn imposé wu leen ko dañ ko waroon imposé mu bokk ci biir école sénégalaise bi dañ fay jàngale diine fii du France laïcité France laïcité athée ñom kenn du fa jàngale diine déjà France légui xam nga voté nañ ben loi hmm. ku fa am doom 3 ans dang koy yob mu dem école 3 ans parce que néna à partir de 3 ans lañu daan gis julli di di jema jangal sen seen doom yi diine té bu ñu leen bàyyee 3 ans ba 5 ans ba 6 ans ci digënté bobu dañ leen fay xamal diine té loolu du maam dañ wara a xalé bi mu dem école bo xamné ne athée su màggee après ñu bëgg doon mu doon non c'est pas vrai après day nekk athée lan moo tax ñu kar yow sa doom ba trois ans buggul nga def ci moom diine xanaa loolu mooy diine lay mais xale bu am trois ans nga ne nañ ko yóbbu ci garderie d'enfants te par force loolu la ñu dogal France te loolu mooy ñëwaat Sénégal après bu dee nooy lañu bu ñu nooyee fa lañu jëm c'est-à-dire ñun suñu système bi mooy anti religieux ci gàttal système bi moo bëggul diine li fi diine nekk ni di ñor ñooy waa diine ñooy bañ bañ mais système bi bu diine yow xam nga ne Sëriñ Tuubaa amul si سيدي حاج ماني امول سي سينا لي ماما بايس ما بلايس مام خليفه ньо ньо مولا واخ سين سيك امول كو امول بروبليم توباب بي والو وارال توباب بي جوتي شيخ عمر جوتي كين سليمان با جوتي كين ماكو جوخ با جوتي المام عبد القادر كان جوتي سيدي توبا جوتي سيدي حاج ماني جوتي ما بلايس جوتي بايس جوتي لي ماما سيدي توباب بي سيك ني ني ييب مو بوكم سيك amul ku fi mas jaar am diine te tubaab bi am naa ak yow problème loolu moo lay wane tubaab bi sikk na anti religieux tubaab bi dafa bëggul diine surtout bu France nag moo tax may wax ñoom ay ñoom daal système mu at moo leen gënal moo tax affaire bi kenn kenn mënu ko régler fii ak système mu laïcité bii dañu am laïcité bu positif am na mooy laïcité boo xam ne dafa wuyoo turam mooy moom du jël benn diine teg ci kaw bi ci des waaye diine day dox ci pénc mi ni fi lépp di dox ñun nag laïcité bi ñu doon ci France dafa ne ni réew mi di doxee yoonu diine nekk ci dindi sànni xëy na li ay jullit yu bari yu dëgër loolu moo mais bu dul ak loolu du am jafe-jafe ak benn jullit mais foog ñu comprendre que ne système bi moom bëggul diine da cee mënul ah waaw man déggoon naa ne ni France dañuy former ay imam. wala dañuy jéem utiliser pour jéem a ñu ngi ñoo xamante ni former foofu si France. jàngale alxuraan wala di jàngale arab.

am na benn imaamu góor jigéen bu pare ñu naan ko Mouhamad Lidovi imaamu góor jigéen neen dañuy formé ay imaam am na beneen jigéen bu ñu fa formé bu nekkaat imaam di fa jiite jumaa ju mag foofu ci pare jigéen imaamu jigéen kon bu ne la damay formé ay imaam léegi yow di nga xam kii fan la jëm mooy ñun la bëgg a tegal ay ndëgg sërëx waaw ah, kon mbokk yi ñoo ko déggandoo xam naa ni nag lu neex du doy te lu duuf si nag bi yëpp xajoo si biir cin imaam ñu ngi lay jaajëfal. xanaa balaa ñu tëj rek nga wax nu yóbbul bis bi tey ak loo xamante ni dinga ko mën a bàyyil mbokk yi nu mën si jafandu. ba keroog ñuy uh, gisee waat. waaw li may dénk daal mooy nu jàpp alquran ak suñu fukki loxo parce que man lii ma gis muy ñëw riir mii ma gis muy ñëw wallaay bu ñëwee du baax mooy dañu fas yéene tàqaleeg téere yàlla bi. na julli di jëlaat seen doom jangal jàngal leen alquran ñu yar leen yaru diine bu mu ko deful tuwa bi dina ñëw indi ñu culture bu bon bu may lan moy éducation sexuelle bi ñuy coow fii ñi ngi commencé di jangal xale yi sey ben parce que bugu ñu jang diine système ngóor jigéen danañ ko installé fi da mënul baare yi nak ludul ñu jang alquran jangal ko xale yi yóbbu leen ci daara yi daara na nekk base bi balaa kenn sa doom di dem école yóbbu ko daara ba noppi mu dem jàngi alxuraan nga xam ne diine de jiitu ci moom su paree nu ubbeeku na jàng anglais na jàng lu ko neex mais moom na diine jiitu d'abord loolu daal man moom laa fas yéene man te moom laa yéene jullit yëpp nu def ko mooy ku ci am sa doom jiitalal ci moom diine su ubbeekoo ci àddina lu ko neex na ko doom man dama gëm ne économie Sénégal bii boo ci génnee la ca waa daara def ko doo dese dara ci àddina waaw boo demoon euh, kokki gis xeeti bâtiment ya fa nekk xeeti daara ya fa nekk benn daara nga tabax ko 4000 mille ne ci ay ay ci kaw te benn nit moo ko tabax te ci daara ji la nekkoon di jàng jàng bu pare génn liggéey sotti fa ay milliards tabax fa résidence boo xam ne même président ci boppam dañ ko faa utal appartement boo xam ne président bu la neex ci àddina indi ko fi ci luxe di fay courant ba di fay ndox ma te ab taalibe la bu jógee te loolu noonu la amee Fass noonu la amee Touba noonu la amee Thiès noonu la amee fu ne loolu mooy wane ne waa daara ji yii suñu mais dañoo tombeeg benn système bu soxor li may dénkaan daal mooy nañ fonk téere yàlla bi ñu góor góorlu ci jàpp ko fukki loxo mooy suñu tedd nga àddina ak àllaaxira fii du Europe ñun lii la ñu xam li ci des mooy di leen jaajëfal di leen jaajëfal yéen waa yoonu ndam TV yàlla na ngeen am ndam yàlla gën leen a kàttanal affaire yi moom nii la góorgóorlu rek yàlla na leen ci yàlla gën a jàppale daara daayira dal sunu sunu yef la ñu ah daara daayira sunu yef la leen ko bayyi xel fi la bok ci senegal yalla na yalla gën leena katanal dal assalamu alaykum wa rahmatullah waaw mbokk yi kon euh, non lañuy ñuy tàggatoowee di wax assalamu alaykum wa rahmatullah sen émission daara daayira yoonu ndam TV ko la ko doon defal bi sen rak sen mbokk sen xarit Modou Lam de lëngu sen nak imam euh, babakar Sylla di imam jakk ci tassonatal ñu ngi koy jox wàccuwaay moom momit di ko jaajëfal si émission bi mu nangul di ko gërëm di ko sant wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. maam jërëjëf jërëjëf merci beaucoup jërëjëf ñoo ko bokk macha allah. jërëjëf nga yokk nu ñaan nag. incha allah incha allah yal na leen ci yàlla gën a jàppale. am leen ci ndam bu wér a wér a wér am leen ci ndam bu wér a wér a wér incha allah macha allah jërëjëf la